yéen njiit yu gumba yi dingeen torox yéen yi ngi wax ne ku giñe kër yàlla gi ngiñ li duggul waaye ku giñ ci wurusu kër yàlla gi dugg na yéen ñi dof te gumba lan moo gën a màgg wurus wi walla kër yàlla gi tax wurus wi sell dangeen ne it ku giñe barab bi ñuy rendee ci kër yàlla gi ngiñ li duggul waaye ku giñ ci sarax si ci kawam dugg na gumba yi lan moo gën a màgg sarax si walla barab bu rendikaay bi tax sarax si sell ku giñe barab bu rendikaay bi giñ nga ci rendikaay bi ak li ci kawam lépp ku giñe kër yàlla gi giñ nga ci kër yàlla gi ak ki ci dëkk ku giñ ci asamaan giñ nga ci jalu buur yàlla ak ki ci toog yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi sàkk asaka ci naanaa ak anet ak kumin te sàggane yi gën a màgg ci yoonu musaa maanaam njub yërmande ak ngëm loolu ngeen war a def waxuma nag ngeen bàyyi la ca des yéen njiit yu gumba yi yéen a ngi segg wallax njaan te wanni giléem yéen yi ak farisiyen yi nafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi setal bidib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal farisiyen yi gumba yi jëkk leen a setal biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam set yéen xutbakat yi ak farisiyen yi nafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñuy weexal ci biti am na nañu melawu rafet waaye ci biir dañoo fees ak yax yi ñi dee ak tilim ju nekk yéen itam ci ngi ngisal dangeen a mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak naafeq ak lu bon yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi tey rafetal bàmmeel yi ñu jub ñi te yéen a ngi wax ne bu nu fekkee woon sunu jamonoy maam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 loolu lépp dina dal ci niti jamono jii yerusalem yerusalem yow mii rey yonent yi tey sànni ay doj ndaw yi ba ñu dee akamaa bëggoon a dajale say doom ni ganaar di wuufe ay cuujam te leen kon nag yàlla dina bërgël seen kër ba mu gent ndaxte maa ngi leen koy wax du ngeen ma gisati li dale tey ba kere ngeen ni yow mi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga